asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen balu àq te di leen mu mosawu coono ba ma koy jaayante wallaay gis naa ko mbàkki bale lii fi ne lépp yow la sa jëmm yi nga yónni nag ñu jëm si fii ci kër gi dama leen di xoole yow ma bëggoon nga waxoon ma ko ma doxale ni may doon doxale ak yow ndax kat sama baay bu baax bii moo ma ko waxoon doomi sëñ bi soxnaa sëñ bi fosu sëñ bi yaa ngi dégg ndawal sëñ bi dama dama bàyyi dafa ma noonu day ko xoolee sëñ bi kon sëñ bi Mbàkke maa ngi leen di xoole sëñ bi samay bët ak samam xel yëpp mu ngi ci yéen. waaw ah, euh, sëñ Cheikh Aliou Mbàkke Mbàkke Balla sa jaan wàtt sëñ Aliou Mbàkke sa baay bu baax ba ba muy ñëw siin di waru fos. sama fosu bàyyi ma topp ci kawam gàddu gafeke gi muy jaar fii booba oto yi bariwuñu wuñu saret yi bariwuñu nga tukki ba ñibbi si bitim réew mbaa nga yow ñuy ànd ngay war sa oto boobee may topp ci sa kaw bu ñu egg see ñu ne ah osir noxe sir osir noxe mbàkke ak garay men booba mbàkke mbàkke yi ñu siin de maa ngi yow rek mbàkke bala maa ngi yow rek ba nga def li nga def siin tund siin gépp mbàkke waa siin gépp a ngi lay ñu ngi lay siyaar rek mbàkke ñu ngi lay sant bu baax nag man nag ngërëm li moom man dama koo teewe ci sama loxo mbàkke lu fi am yow ndax sa baay bu baax ba ku bàyyeeg yow nga ñëw yokk taaw ci kër baayam bu yokkut wàññi mbàkke dangaa yokk bu baax te ñu xam ko mbàkke yàlla mbàkke bala yàlla na suñu borom guddaw fan yi mbàkke bala yàlla na képp ku sant Mbàkke rek yàlla na suñu boroom yàlla kéemaanal euh, yontu yàlla noo at ya mu amoon yàlla na ko suñu borom dox mu wàcce ko ci yow bi jaay Seydina Muhammad rasulullah ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, sëñ Cheikh Aliou nag xam naa euh, dafa ma booleek samay rakk muy alaaji Cheikh mbàkke ak sëñ Cheikh Mbacke doom sëñ Modou Ablaye ak sëñ Mamour Mbacke ak waa daayira mañ ma honoré nii ñu def délégation bu am solo ñëw teewee si lii euh, moom nag xam naa amoon na yéene lool ñëw teew waaye daa fekk mu dem bitim réew looloo tax ngant loolu moo tax teewul fii waaye mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax gis na seen pasteef gis na seen taxawaay wax dëgg yàlla sant na leen gërëm na leen sant bu baax soxna yi ñoom tamit jàmbaar lañ ci yoon wi ñu leen di sant bu baax gis nañ taxawaay bi yëpp ñu leen di ñaanal ñu yàgg koo def ay ati at ci bàkki Serigne Touba yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax. jërë ngeen jëf sant nañ bu baax a baax. bëgg la siyaare mm-hmm. ah, ñu sàkku si yow rek mbàkki nga ñaanal leen mm-hmm. ndaxte mag ñu baax lañu mm-hmm. dara ñoru leen budul Majmahun Nurayni gi jëm si kanam rek jëm si kanam rek seen liggéey lépp ak seen xel ak seen xol mooy daara gi dem si kanam rek waaw kon si loolu la ñuy omat si loolu la ñuy gont si loolu la ñuy xëy kon nu ngi lay ñaan mbàkki nga ñaanaleen bu baax a a baax suñu yàggal leen fi ñu wér wér la bu baax a baax a baax gudd fan lool te lépp lu ñuy liggéey rek ñu ànd ak ñoom rek ci liggéey gi. rajim bisimilahi rahmaani rahim jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaarama maam Cheikh Ibrahima Fall euh, sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax Mbàkke di lottu lool nag ci yëkkati ay kàddu ci kanamu mboolooy moo xam ne ay boroom xam-xam ñoo ko ñoo ko teewe ak sa jëmm ji waaye nag. Eh, dafa mënta ñàkk tey eh, cant yi eh, kàddu yi ñu yëkkati nag kantu kàddu yi cant la ak kàddu yi seede ñu ngi lay sant bu baax a baax Mbàkke ci sa teewaay li tax ñu ngi lay sant mooy kenn bu ngeen toogoon sax ñu fekk si ndax liggéey ngeen oyofal seen bopp ba di ñu fekk si kon lolu cant la kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax ci seen teewaay di wax la nag euh, màggalu nañ ko bu baax a baax nag waaw parce que euh, ku toll nii sëtub sëñ tubaa ñëw seet si la euh, loolu du lu ndaw lu rëy la waaw mënoon ngeen a jafe loolu nag waaw kon bu ngeen demee ba yomb ci ñun kon cant la cant boo xam ne am na fu mu commencé ma waaye amul fu mu yem jëmm ji toog nag kii moomu booleek moom mu jëmm ji. ki yaakaar naa ne ñoo defandoo sunu ndaw bokk benn koñ defandoo sunu lépp nag mu nekk sama àndandoo mu nekk koo xam ne ci yoon wi rek laa ko xam bi ñu màggee ak bi ñuy nekk xale yëpp ci la ñu juddu ci la ñu màgg mu nekk ci nag koo xam ne ku ci njàmbaare la di ci def loo xam ne wax dëgg yàlla képp ki nga xam ne taalibe la war na ko cee néew di ko ci toppandoo parce que mën nañ ne royukaay la kii nii wax dëgg yàlla ñooy ànd nekkando ki mais sama kay la nu ngi yëkkati kaddu ci ndigalu Serigne Cheikh Aline ndax li tax moy moonu joxone bu mbolo mi teewee nga yor kaddu nuraini Touba Gajak bi mo waral ñu jël kaddu nu ngi sante suñu borom bu baax xana xam-xam bi motewu waaye ndigal moom jëfe rek te la tax mu neex mooy boroom xam-xam ak kilifa bu la waxloo loolu sant sunu borom la waaye suñu jëm gi motowu ko waaye alhamdulilahi rabbil alamin dañ koy gàttal rek njëkkee ci ñi nga xam ne ñoo ëmb Majmahun Nurayni Tuubaa Gajak gii waaye timitam nekkal fi mboolem Majmahun Nurayni bi nekk national ak international di ci sant bu baax a baax a sëriñ bi waaye timitam di ci nuyoo sëriñ Cheikh Lo bi nga xamante ne moom mboole yilif Majmahun Nurayni mu nekk bopp euh, nu ngi sant sunu borom di wax Majmahun Nurayni day sant na bu baax a baax a baax bu nu amee kilifa gu doy ni sëriñ Cheikh alin bi mu jiite leen doon seen wasila te moo teg fa sikk nag euh, ñu ngi ciy sukkandiku tamit itam di sant mboolem daara ji di ci jiital soxna yi mag ñi di wàcc ba ci góor ñi mag ñeek ndagu ñi daara ji ñëpp rek ñu leen di sant bu baax a baax a baax liggéey bi rafet na lool seefu na timitam te lépp ci biir xat-xat rek la ndax bés bi kenn ku ne xam na ne li tax bu ñëw ba fii xatoon na lool amaana bu nekku doon farlu sax day far ñàkk waaye nag alhamdulilah ni nga xamante ne jawriin yi ak soxna yi taxawee nan ko euh, ñu ci gën a nuyu jëwrin Assane miito nga xam ne te mooy bopp daara ji euh, alhamdulilahi rabbil alamin bu nu weesoo foofu nu daal di sant timitam mbooloo mi nga xamante ne jóge nañu fépp ñëw jàpp ci bés bi di ci jiital waa joyin waa joyin ñu leen di sant bu baax te gala sekk jiite leen ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen ñaanal ndax seen pas-pas rëy na lool seen taxawaay yàgg naa rafet ngeen yàgg ànd ak ñun bu baax incha allah kon nu ngi sant bu baax waa Diohine di ci teg timitam waa Touba Toucar euh, macha allah ñooñu ñoo bokk daara ji ñoo bokk majmau bi ñu am pastef lool ci bés bi euh, sëriñ Abdoulaye Diouf sax bëggoon nañu waaye nag yebal na sëriñ alin muy doomam mu teewi si bés bi ak kuréel bi nu ngi leen di sant bu baax a baax baax a baax waaye li ñu waroon njëkkee sax mooy daara ji nga xamante ne ñoo féete si dëkk bi too euh, taxawee walu alxuraan ji mooy këru euh, sëriñ Mamadou Lay sëriñ Abdou Xaadir Lay jiite woon ko ñu ñëw fii jàng alxuraan bi xat ma ko ñaanal ñëpp xanaa ñooñu lañ waroon jiital waaye sant sunu borom di ci teg tamit waa baak njëkkee yónnee woon nañ fi seen ndaw teewoon na fi euh, teew bu am solo wax dëgg yàlla alhamdulilah gis nañ ko bu baax nu ngi koy ñaanal bu baax mboolem ak ñi mu àndal incha allah bu ko defee tamit waa dëkk bi tamit nu leen di sant bu baax teewoon nanu teewaay bu am solo def ci seen ñaq ak seen alal. nung len di sante di len siar waye di len ñaanal sunu borom subhanahu wa taala kattanal len bu ñu neppee nu wa fisel li tax ñu mujje nagmoi nag mooy beral len loxo motax ñu mujje ndax amana nit boko fonké lol dang koy bëgg mujjé ndax nga mën ci sukkandiku bu baaxa baaxa baax mënu ñoo wax lepp ci ñoom ndax dañuy ay woloré ñu yàgg taxawu bés bi lool wax dëgg yàlla ñoo leen di sant bu baax euh, sëriñ Mor Talla Ndiaye jiite leen ànd kook xaritam sëriñ Mbay Seen ak kuréel ñi mu àndal ànd ko ak timitam seen soxna bu tedd soxna Xadijan ñoo leen di siyaare bu baax di leen ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom kàttanal leen mbakke bu ko defee rek nga ñaanal leen bu baax a baax ak mboolem ñi fi teew incha allah sunu borom subhaanahu wa taala def barke mboolem ñi fi teew waaye def ci wér kenn ku ne lépp loo fi indaal muy njàqare muy tiis muy wéradi sunu borom subhaanahu wa taala saafara ko num ko mënee incha allahu ak ni ko bëggee bu nu jógee foofu mënuñu ñàkk a seedal Serigne Cheikh Aline Mbacké ci kem lu nu xam nu lépp nag waaye kem rek lu nu xam sant nañ bu baax a baax nag. li tax mooy léeg damay nekk sow toog ak nit ñiy waxtaan duma ko wax sax mbirum Serigne Cheikh waaye dañuy wax ba mu àgg si moom te du xam ne sax Serigne Cheikh mooy sama wasila loolu mbégte la tawfeex la kon Mbàkke sant na bu baax a baax a baax Serigne Cheikh muy nitu lislaam koo xamante ne lu ko ñor mooy lislaam lislaam taxaw rek waaye lislaam gën a rafet loolu rek moo ko ñor damay faral di wax wa canaba def na lay ñooñu ko gëna xam te amana ñooñu ko gëna bëgg lolu ku mëna ku seetaan vidéo yi muy tourner rek di ko xam wa won non mbaram kéru diiné yépp xam Serigne Cheikh si doxalin bu muy doxal si l'islam bu mu til leb, di diko rafetal di ñëw lepp kon nu ngi koy bu baax di ñaanal bu baax suñu borom gën ko wëral ba lépp lu mu naal ci yoon bi rek sunu borom fab lépp teg ko loxoom te nu ànd ko ak moom di sant bu baax a baax a baax a baax euh, sëriñ bii nga xamante ne yoni na ko mu ñëw teew muy doomam Mouhamed Mbakke lan koy wax di ñaanal sëriñ Cheikh yàlla na yeggale naa li way jur ya te toftal ci naali boppam tan ànd ko moom ci barke xadimu rasul mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax ci turu seen cheikh moom sëñ Ali moom cheikh Mahamadul Mustafa di nuyu wa dëkk bi bu baax te di leen ziara di jiital ci nuyu waa dëkk bi ulamaaw yi fi nekk yépp di boroom xam-xam yi ak sëriñ daara yi nga xam ne ñooy taxawee alquran ji ak jumaa yi ak jàkka yi di nuyu maj moo honoré nii bi fi nekk di leen sant bu baaxit ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne waxtu wu nekk yéen koy taxawee sëriñ bi xolam sedd na lool tey it na ci seen jëmm muy lool kenn ku nekk gis na ne bi ak tund wii miinante nañ lool ci yu bari ndax taalibe gu rafet gi fi nekk ak taalibe gu sell gi fi nekk waaye ak dëgg ak bëgg gi diine gi fi nekk loolu neex na bi lool loolu yi bokk na ci li dalal xelam lool seen jëmm yi ba waxtu nekk bu leen bàyyi xel bu baax kenn ku nekk yéen ak sëriñ bi yónnee na ko am nuyoo bi gën a rafet di ko teewal ci jëmmam loolu it moo waral sëriñ bi bàyyi xel gum bàyyi xel jataay bi ak fonk gum fonk jataay bi loolu moo taxal moo tax mu yebal njabootam gii nu àndal xam ngeen ne Serigne Mohamed Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou moo jiite délégation bi te Serigne bi yabal ko fi mu ànd ak rakam Serigne ji Mbacke moom itam mu ànd ak Serigne Mamour di doomam di léppam sëñ bi bëgg ko lool bàyyi ko xel lool waxtu nekk ñu ànd it sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ Abdoulaye moom sëñ Bassirou Khoudia Dieng moom Cheikh Amadou Lamine Bara Mbacke moom Xaadimu Rasul moom itam ci njabootuk sëriñ bi la bokk ñu tuddee ko sëriñ bi waaye sëñ bi am cofee ci moom lool ndax damay faral di wax ne Cheikh Mahamadou Moustapha ak Cheikh Amadou Lamine ñoo bokk lépp. kon dafa mel ne mag ñi li ñuy def moom xam nañ ko bu baax ci délégation bi am nañu ak Baye Ndiaga di magum taalibe moo xam ne ku xam sëriñ bi xam nga ko ci barab yu bari yu ñuy faral di teew bokk daayira maj moo noore ni am amee ci taxawaay bu rafet xam ngeen ne it sëriñ Cheikh Dieng bu maj moo noore ni nekk secrétaire général bu daayira Majmahun Nurayni moom tamit ci délégation bi Serigne Souleymane Lo moom itam mi ngi ci délégation bi nekk président organisateur bu daayira Majmahun Nurayni yaakaar naa fédération bi yëpp ñu bari xam nañu ko ci taxawaayam bu rafet Serigne Cissé it mi ngi ci délégation bi moom mooy vice président bu daayira Majmahun Nurayni moom la toftal ci Alhaji Cheikh Lo mi nga xam ne moo jiite daayira Majmahun Nurayni yi nekk ci réew mi ak yi nekk bitim réew yëpp. moom itam mi ci délégation bi Serigne Malick Tall moom itam bokk ci jawrin yi nga xam ne ñoo teewal sëñ bi fële ca Husnul Maab di tindoo di bokk ca Majmahun Nurayni boobu moom itam teew na ci délégation bi moom ak Serigne Pam Ndiaye mi nga xam ne ku xam Serigne bi xam nga ko ci bëggam sëriñ bi ak topp Serigne bi gëm sëriñ bi sa nanga ko liggéeyal moom itam mi ci délégation bi

boole ak sëriñ Mouhamed Mbacke mii nga xam ne ñun moom la ñuy xoolee sëriñ bi ci jataay bu sëriñ bi nekkoo tam nekk fa sëriñ bi nee na nanu bokk góorgóorlu ñun ñëpp ci lim ñu baaxoo diggal nga xam ne mooy digal suñu borom subhanahu wa taala yi sëriñ bi wax na ko léegi sëriñ bi ak ñoo diine ak mboolem ñi bokkal tayoxe yi ci biir réew mi sëñ bi dafa dégg alquran ndax alquran moo ne wax tasimu bi abdillahi jamian wala tafarraqu sëriñ Cheikh nag ba mu déggee kàddu sunu borom googu la war la xam ne tàqalikoo wut a am mu def jullit ñëpp ni jëmmam moo tax këri diine yépp ñu ëmbal sëriñ Cheikh yiw ndaka jekkit loolu mu mas a ku faral di ñëw daaral xudduus ci màggal gi ñu dëgmal na ashrina muharram nga xam ne mooy santaay Cheikhul Khadim mi nga xam ne moom la ñuy waajal tam des ay fan yu néew di nga gis ay jëmm yu bari yu bokk ci ay tarixa yu wuute ci biir réew mi yuy teew ca barab bi loolu nag li ko waral mooy Serigne Cheikh moom nitu diine rek la xam kuy taxawal diine la bëgg moom ci taxawaay moom itam Serigne Cheikh nag barab bii moo fi a teewal boppam. ngir cofeel gu mu am ci yéen ak yiw bu mu leen ëmbal waaye dafa nekk ci réewu tugal yi loolu moo sabaxu teew fi mu waaye mu yebal fi njabootu boppam te ñii ma limoon ñii kenn ku nekk mate nga sëkk jataay bi sëriñ Cheikh kon nanu góorgóorlu bu baax ci liggéey ak jaamu yàlla ni ni ko sëriñ bi di waxale te ñun ñëpp nu farlu ci ndigal suñu boroom yi te kenn ku nekk ci ñun mu bàyyi xel moroomam. kon xam nga ne man am naa yaakaar bu bari ci maam Sëñ Tuuba ak ak doomam ak setam yëpp maa ngi am yaakaar bu bu mot sëkk ci moom damaa yaakaar ne lu mu am ci moom laa ko jëlee maa ngi koy sante di ko gërëm di ko yaakaar boo xaw ma fu mu yem xaw ma fu mu yem de mën naa ne fii laa tàmbalee maam fi mu yem moom xaw ma ko. ñoo ngi leen di gërëm di sant man la Seynabou Diouf taalibe Cheikh Aliou Mbacké di leen gërëm di leen sant di wuyu bi ngeen wuyu ci suñu bés gi kontaan nañ ci wuyu ji macha allah kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax